laaju bés bi tey dafa amal ab taxaw seetlu ci faat bakkan yu ñemmeeku ci réew mi moonte dey senegaal lañu doon duppee réewu teranga ndax jàmm ak salaam gu fi doon dox waaye mu mel ne la woon woon ni na ndax doo toog benn ayu bés boo xam ne déggoo fi ku ñu rey ci réew mi ñun nag comme saa su ne nu ñu koy defee wàcc nañ ci askan wi ngir am seen gis-gis ci mbir mi. rey moom dafa bari chaque jour yaa ngi dégg du wax waxuma la par un mois de par 15 jours da ngay dégg rey nañ kii nii rey nañ kii nii loolu noonu du yoon soxna si. problème société la d'abord mooy il faut ñu régle problème éducation de base yaakaar naa ni bu ñuy xaw a jógee ci régler problème éducation rek mooy waral lu ci mel nii éducation de base soo koy dégg mooy il faut kër bu nekk ménage bu nekk ñu delluwaat encore si li ñu amoon mooy yar suñu ay doom si kër yi ba pare bu ko defee. bu ñu génnee ak bitu bi ñu mun nekk ay doomu adama lo gis éducation de base la xalé bi amna éducation bo xamante bu ko amut au niveau de sa famille donc pour pouvoir la pour pouvoir yo nga mun ko cadrer au niveau de la société day doon lu jafé deuxièmement emploi bi itami taux de chômage bi bëri na bëriwaay boo xamante ne ñëpp a Sénégal da metti ça pousse à certains jeunes de se rebeller rébellion bobu itami ci chômage bi la bokk. manque de liggéey bi quoi manque dee travail moom moo waral loolu mais ñun ñi nga xamante ne nii yàlla dañoo natt ñu gëm Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni donc ñun mënuñoo xam luy rey c'est parce que Noreyni dañu tàggat ci muñ xam nga suñu amee dañuy dañuy dañuy sant bu ñu ñàkkee dañuy sant. parce que xam nga rek sooy dem bay tiim sa moroom sa julit waxuma la bu dul ku dul sax nga tiim ne da nga koy rey xam nga mooy nit ñi ànd ak seen sago quoi. nekkatuñu nekkatuñu ay nit dëgg dëgg dëgg loolu nag pour man loolu yëpp nag xam nga ci éducation la xam nga. nit mun la yaree fan la war a yar nga toog fa nga war a toog ñu def la la nga war a def boo fekkee ne dañ laa sant jàng nga dem jàngi bu fekkee ne nga war a liggéey nga nekk sa bërëb liggéeykaay moom am na yoo xam ne doo si dugg. xale boo ko waree yar yoroo ko rek bu génne mën nu mele bu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal comme ni ñu yoree bu ñu ko toppee woon noonu. gëm naa ne kon fii yëpp duñu fi accès. nit ki nag euh, maanaam li nga nàmp rek moom ngay wanee quoi voilà te loo gis tamit euh, dafa laaj éducation de base waaw éducation de baas mooy njëkk mooy mujj voilà éducation de base dafa baax ci doomu aadama voilà te tamit nit maanaam suñ la yaree si yarin bu baax ñu demaat yaraat beneen doomu aadama ci yarin bu baax soo génnee ñoom ñaar ñu daje kenn du yàq. voilà ñoom kenn du yàq dañuy defar réew mi si defar bu mucc ayib. mais nag lu si ëpp si xale yu ndaw yi léegi nii muy góor muy jigéen wala doroga bi moo si ëpp te loolu baaxul si ndaw. pour man ñu koy def ñëpp nag am ñoo seen sago de nekkul ñu de parce que ñooñu xam nga la plupart xam nga ay drogué lan xam nga wala xam nga ñu soxla benn affaire ma ñëw soxla ko si yow xam nga xaw ma xaw ma nan laay def pour am ko ma génnee leen na xam nga gaañ la. xam nga rey la rey boo xamante ne xam nga c'est inutile quoi pour man. chaque jour yaa ngi gis sa doom di solo bees xëy xëyut gontut war nga xoolaat seen mbir lay dugg moo waral yu bare bëri ñu si dugg loolu ñu ñi war nañ ko xoolaat baax a baax a baax. léegi faral naa di dëgg ñu ne état bi lan la ci mun a indi ba saafara xam nga état mënul indi lépp mënul def lépp waaye ñun d'abord citoyens yi d'abord ñun d'abord ay chefs de ménage ñoo nar a régler problème ba pare état bi. mun renforcer capacité gendarmerie la capacité police bi indi na fi ay euh, agents de proximité mais mu joxat encore ay ndombal tank yok manam secteur bu nek au moins mu am ni au Sénégal faral di wax médecin pour mille personnes moy am ci police mu am ci gendarmerie quartier bu nek bu fa ñaari de police mun na xaw régler problème de état au niveau de sécurité mom jël na ay matuwaayam loolu ça reste à désirer parce que bo xolé yenn milieu yi non seulement la population dañuy am une forte densité de population éclairage bi ça manque sécurité bi néew fa da nga gis ay jeunes yo xamanténi aussi au bas âge dañuy baye jang du coup psychologiquement les aspects ça manque quoi donc du coup ñom pour dañ doon ñoo xamante ne bi mo moo leen di caractériser quoi. état mënut ta dugg ci biir kër yar nit ñi. nit ñi ñoo waroon fulla yar seen njabot tégal leen ci diiné tégal leen ci raata mustaxim boko défé yalla da nga lay dimbalé yow da nga judd bo juddé doon magum jëm sa ndey yaru la sa baay yaru lay yar état dafa la mëna yar xana nga dugg ndak si loolu yóbbu la saamit lool rek état man état bi daal lu mëna def moy euh saytu saytu bu baax di dox di xol bu baax ñi baax mu tan leen ñu bon ñu duggal leen ci kosa bi voilà tëj leen. waaw phénomène bi moom pour pour pour mu dañ fi quoi mooy état dafa war a jël xam nga ay ay ay ay daan quoi ay daan ay daan yoo xamante ne nii yu leer nañu la nit bu ko def lii lañ lay daan amul sax négocier kii dañ koy tëj xam nga bakkan moo foor soxna si bakkan ku ko dindi si nit doomu aadama dañ dañ kaa war a dind si yow ñu rey la ku rey rek ñu rey la suñ ko defoon. billaay wallaay léegi léegi ñëpp nekk nit di dox doxu nit di wax waxu nit want tey jii da ngay 2016. ñaata nit daan rey. dama gis ne Penda Mor kon faw mu ñëw ku rey ñu rey la ku dagg sa loxo ku dagg loxo nit ñu dagg sa loxo ku sàcc ñu dagg sa loxo loolu bu ñu ko defee si kàttanu yàlla incha allah gëm naa ne affaire bi dina saafara daal. Penda Mor baax na ku rey ñu xool mobile bi parce solo du ku rey ñu rey la mais mobile bi lu tax parce que mobile bi ki ko mën déterminer mooy état rek moo mën bu fekkee ne def na lu ci war ñu xool mobile bi lu tax mu def lii. bu ñu xoolee mobile bi dafa méngewul ak loo xamante dafa nar a am peine de mort daanal jox ko peine de mort. waaw peine de mort d' accord naa Sénégal mais na def ateb sariya bu fekkoon ne ko rey nit ñu rey la ku sàcc ndeg sa loxo lii yëpp yàlla na si musal. defaraat jikko defaraat askan wi ba ñu nekk daal ñun ñëpp ñu nekk benn parce que ñun ñëpp Sénégal euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar benn bopp la rek kenn mënu koo xar